mbokk yi arbitre ngi noonu di laaj ay jugeem Dial Diop ak Góor Fit arbitre sifflé na Góor Fit Góor Fit ak Dial Góor Fit moom la ñuy lool Dial Diop moo ñu woon ginnaaw combat spécial baa ngi noonu eh ñoo ngi Góor Fit lu muy def nii Góor Fit ak Dial Dial góor fit Dial Diop ak góor fit góor fit moo wan ginnaaw Dial Diop la lool léegi Dial Diop ak góor fit Dial Diop dafa xeex bërëbee ko gënal waaye góor fit Dial Diop ak góor fit Dial góor fit Go Fit dafa bëgg jàpp jàpp na lu muy def Dial Diop Go Fit génn nañ saako yi Dial Dial Diop ak Go Fit Go Fit ñoo xeex Dial Diop ak Go Fit eh Go Fit góosam bi Go Fit ak góosam fàq na ko ko war na ko ndomba da koy dëj toog na Gofit daan na Jal Diop Gofit Gofit daan na Jal Diop waaw waaw da ko war ndomba ko fitti ko mu toog.